Thank you. Ahmadou Bamba. jërëjëf Fatou Ndiol. jërëjëf jërëjëf Cheikh. jërëjëf Ahmadou Bamba. jërëjëf Fatou Ndiol. Vamos! Şeyh Ahmet Banlı Kabin Nazır Derece Nazır Ahmet Banlı Kabin Nazır Derece Nazır Ahmet Banlı Kabin Nazır Derece Nazır Ahmet Banlı Kabin Nazır Derece Nazır Ahmet Banlı Kabin Nazır

xanaa nag nit daa yàgg jariñoo loo xam ne xamutoon bu demee wutoon nii nu muy demee waaye mën na am bu dutum suñ Tuubaa suñ toogee fii di wax ay yëfër la ñuy doon kon nag bu suñ Tuubaa taxee ñu ñu ñu dooni jullit muy mu xaroo lislaam ba mu agsi ci suñuy loxo nam xa fareewoon ak boromam nag war naa am ci ñun ñu fareeg suñ Tuubaa maam Seera Faal ak maam Sey Sadio ñi ñu fii ñoo ñu gën di mënuñ leen a dab waaye suñuy nawle lañ ci lan dañ leen a ci liggéey suñ Tuubaa nawle woon ñoom nag de ndax duñ suñuy morom. te mërëmante wu ñoom ñoom waaye nag gis nga suñ tubaa professeur mi ma leen tuddal ak ka sant Mbàkke te nekk wala ka sant Fall ñëpp a ci yem buñ dajee ci kanamam ay nawle dong lañ la muy lan ay taalibe yu sàkk ngërëmal suñ tubaa kenn ku nekk nag yaa xam na ngay sàkku ngërëmal suñ tubaa waaw kenn ku nekk yaa xam na ngay sàkku ngërëm si kon bu fekkee dañoo tëj suñu bunti kër bàyyi suñu yitte gëm ne li ñuy dox suñ tubaa tax ñu di ko dox waruñ cee ba mu doon leneen nag ba xam nit danañu xam ci ak ñàkk ful wala ak ñàkk fayda wala mu gis ñu ci lu mu war a gis wala mu gis ñu fu mu war gis kon nañ gën a jàppaat sëñ Tuubaa te xam ne sëñ mu ndaxaakat wane na yoon ndax dem na bay sëñ Tuubaa waaye yaakaar naa ay ay xéewalam sëñ Tuubaa doo nga ko mën a génn te tamit exemple la ci ñu xam ne lu nit bëgg mën na ko wut ci sëñ Tuubaa ndax daa bàyyi woon lépp lu mën a am ci sëñ Tuubaa lam séq ñëpp ran ba mbokkoon ak ñoom nga xam ne ku fi dul sëñ am na waleem nga benn da nga koy mag mu mag la يوم السبت ثامن حصر لخدمة المختار في سهر السفر مبكي نيغي لين دي نويو باخ دي لين سيارة ني دي لي بالو اك نك دي لين بالاخ دي واخ ني دوخ بي دي وير لول تاخول نو ديكو ديف بيو تاخول نو ديكو ديف regg taxul ñuy waaxu ci nangami kilomètre di ko def daf di sëñ Tuubaa teral nañu teraanga joo xam ni xamuñu luñ ko war a fayee xamuñu luñu ko war a fayee nu fab suñ jëmm ji jox ko fab suñ alal jox ko fab suñ temps jox ko jëmm ji mooy mënatunoo toog boo feccee ñu ni da ngaa yar wut borom xam-xam yi ni daa bew ñenn ñi ne amul diine te sunu xol bii sant sëñ Tuubaa rekk ci ne waaxu geeg tëb geeg dal geeg déglu gi lu mu ci doon sant sëñ rek la. sëñ nag seet na Afrique gii gi nu wër ñi ci amul sëñ Tuubaa ni nu mel benn dëkk bu ci mel ni senegal amul ci diine moo ne mënoon naa wàññi koo ndar gii ndax bi muy dem rek la résumé liggéey bi ci téeréem bi wax liggéey bi ni muy doxee yëpp te teewu koo dem. nee na ci biir gaal gi mu dugg ci la koy suñu borom xamale ni dangay ngay liggéey li rasulillah sëñ Touba ñun ñii ñoo ko taxoon a dem ndomba ndomba gi góor yàlla yi doon takk takk na ko fii ci Touba jëkk muy dem ci liggéey bi kon luñ ko war a mën a faye nun nan fab suñu temps jox ko fab suñu alal jox ko tàmbalee ko ci bis bii te bañati see dellu ginnaaw nit ñi ñëw diñu fekk si luñ am nañ leen ko jox luñ xam ci lu baax na leen ko wax fu fu gën ci nun nañ leen fa teg sante ko sëñ Touba jërë ngeen jëf sëñ Tuubaa nag yàlla da koo jiital laxat sabaxtu la wax te da koo giñ giñ naa ni jiitu naa farxan wa maxriban loolu nag aw déggin la fala yaxfa ala ahadin jërëjëf Mbacke mhm. ci sa bopp waaw kay da cee dugal farxan nag wa maxriban ñu dégge loolu sëñ Fallou firil ñu ko firi leer denn kenn am ñun rek ñoo ko am nañ ko téye baax keneen amu wax bi wax bi dugal na lu bari nee na keneen amu ñun rek ñoo ko am nañ ko téye baax ñun ñii fi ne nañ téye sëñ Tuubaa bañ koo booleeg dara ne ci bëggam sori ak tereem bu nu ko defee den tedd tey den tedd ëllëg wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf sëriñ Touba jëriñ dafe jërëjëf sëriñ Touba loolu dañ ko war di jëbal ci kaw moo ñu may jàmm de Lol de bu yóbbu ñu xam ko la Balla jërëjëf ci pas-pas bi ci taxaway bi yal na yalla yok sa katan yalla na yok sa wër yal la yalla defal fanu gudd ndax pas-pas bi mom gis nañ ko rafet na machallah kon ñi ngi sant ñepp rek di gërem ñepp serigne May jërëjëf def nga lu rafet def nga lu bax ndax euh, lu melni dama ko nam dama ko bëgg mako ko bi ne ko mbir yi fu mu tollu ndax dana amati ren ndax gis nga nit da ngay gëm li nga doon maa moom dañoo jox ko ay kàddu démb ma ne ko nit da ngay am principe. principe mooy loo nekk suba nañ la ci gis ginnaaw suba nañ la ci ginnaawaat suba nañ ci gis ba ba mu sax dàq te yow ci loolu nga ne man ànd naa ci dox yi daan ko def ay ati ati at ak ay yeneen kuréel mais gisatuma leen dégguma leen te man damaa bëgg a wéyal liggéey boobu moo tax ma woo ko démb ne ko ndax loola am na ba tey mu ne ma am na ma ne ko dinaa ci ñëw bu yaakaar naa bokk naa ci njëkk a kon loolu pas-pas la moom lay soññ ndaw ñii jàkkaarloog ñun ñun suñu wàllu wey na ndax suñu jëm jëm nañu ay at waaye nag ndaw ñi dañ leen a soxla ndax Serigne Touba dafa wax lu baree bare ci ndaw ñi wax ko ci kon kaati man wax ko ci naxju wax ko ci tasaawudu sixaar bëgg ndaw yoo xam ne ëllëg liggéeyam bii dañ ko war a tasaare dañ ko war a jàpp puso bi nag waruñ koo mujjee mu réer dañ ko war a bu baax sëriñ bi liggéeyal nañu de sëriñ bi liggéeyal nañu nañ ko fonk nañ ko jàpp nañ ko gëmal suñu bopp xam ni daraja yeeg diplôme yeeg ndomba yeeg loolu du dara ay tegandaay la fi lañ koy bàyyi ci suuf la ñuy dugal laxas ñu juróom-ñaari mètre percal sama sëriñ bu baax ba sëñ Abdou Khadir dafa ñëw di taxawu alaaji Njuga Kebe yàlla na ay yaxam sedd ñu boole ko koo xam ni xelam dafa wàññeeku mu faatu ñu wax sëñ bi ne ko njuga de dañ koo boole ku wàññeeku ba waxte na jullee sëriñ bi loolu laal ko bi mu ñëwee ci mbooloo mi li mu wax rek mooy jàngale la doon def dafa ñaari néew yi tëdd mu ne kan moo ci njuga ana njuga ana njuga nit ñi daanu wane ni nit ñi ñun ñëpp a yem rek li ci ëpp daal mooy li ci gën daal mooy nañ am pas-pas ni ko sëriñ bi waxee kàddu yi mënu ma cee teg lu bari maa ngi jéggalu nag di balu àq ñëpp di bal àq ñëpp di wax ni daal ñun ñi fi teew ñëpp yàlla ñu fi teew déwén kenn bañ a manqué lépp di yow maggal gi ñu dëgmal ñu dugg ceeg baa génn ceeg siin dugg ceeg bismillahi rahmaani rahim génn ceeg alhamdulilahi rabil alamin lépp di yow rek jërë ngeen jëf wax li naa cër bi ji ëpp ci bu ñu nee azzamaan mooy jamono kon bu ñu nee xut bu samaan mooy kilifa ak jamono mm. loola la yenent bi ne sëñ Tuubaa yow xarit nga te bëgguma nga yàqule ndax lii nga bëgg ñi ko mas a bëgg ñëpp ñii yàqule na ñii maa leen dimbale mm-hmm. Mm-hmm. waaye nag yow da ngay sama xarit sa diggante xut bu samaan juróom benn weer def na ci waaye def naa la mu ne ko Mbàkke mu ne ko mu ndax ab sangam ndax moom bu naan Seydina wa Mawlana Muhammad wa alihi wa sahbihi sayyidina wa alihi haza wa inni am suta moom bu waxee Seydina Muhammad rek Seydina sang suñu sang lañ wax mhm. waaye Sëñ yàlla ko fay moo tax Baye Fall yi sax waxuma la Sëñ Tuubaa waaye bu ñu gisee ku sant Mbàkke sax sang leen ko wooyee léegi mhm. looy lebal yàlla suñ yàlla rek ko mën a fay moo tax kuy lebal lebalal yàlla waaye yàlla fay na Sëñ Tuubaa loo xam ne it ku bëgg ko la fay lebalal Sëñ Tuubaa waaye loolu mu ko wax Sëñ Tuubaa ak ak ak ak bëgg ga dana ko loolu de doy na ma waaye nag bëgg naa lu ko ëpp waaye daa am bayit bu sëñ Tuubaa wax ci wakaan xaqan goo xam ne ca lañ xamee ne ndekete xutbu samaan ak xutbul xawsu ak fardul jaame ak lu mu ci mën a doonati du génnati kër sëñ Tuubaa loolu moo tax mu ne ko askuruhu wa xaadilil abdaala kama kafaanil xarba wal jidaala sant naa ab al abdaal baat badal mooy wot mooy mooy remplaçant waaye daal mooy pluriel bi moo tax mu ne sant naa yàlla ba ma wob matalee remplaçant yi nga xamante ni bii saa bu ma jugee ci li ma yàlla def muy sama kilifa ak jamono ñoom rek ñoo a ciy wuutuuti ba abadan waaye loolu nag dane ba mu ne askul waxaat li ab daala dane loolu xeexuma ko xulóona kamaa kafaaneel xar ba wal ji daala loolu dama yàlla dama cee musal ci xeex ko wala sax nekk ci di ci téesante maa ko doon du ma waaye ñi ko nangu dañ koy nangu gëm ko ñi ko nanguwut fañ toog ci seen biir xol danañ xam ne suñ tubaay borom jamono loolu moo tax ba addunay tukki ba addunay tukki yàlla di déglu ci jamono ba addunay tukki ki yàlla di déglu ci jamono ku fi nekkal suñ tubaa rek lay mën a doon allahu akbar loolu moom ku ko xam mooy li suñ borom def ku ko xamut mooy li suñ borom def kon moom lam am ëpp na li waa jamono daan doon moom ñi ñi bokk ci moom li waa jamono daan wut dootu génnati biiram te bam ko ameel am gi ko am moo ko waral waaye nag daan naa wax te danaa ko waxaat aw yoon ku ci nekk gis ku la mag gis koo mag toog waratu la ndax boo xool xool ci gone gi nga xamante ne bi moo la gën a jekk toog ndax day gone te fii bëri na ay gone yoo xam ne fañ ñu toppee mën nañoo réer sax seen way jur xëy na leneen tax a jóg xamuñu ko waaye ñun ñi ko xam na kon lu ñu war a def Baye Abdou mii bi ma koy wax am nañu ko xamul waaye bu buñ ko gisee ak bejjaawam bi xam ne bu leen matul bu leen matul maam mat leen bàyyi te mënoon naa dem toog olof nag dana ay fen nit du ci nekk ba am ci bejjaaw fen yoo xam ne nag sa baay da cee judd ba sa maam judd ba dee ci sa baay judd ci ba dee wala mu ciy dund nga judd kilifa ga waxoon sëñ Tuubaa euh, ne ne ko yoonu murid yi tàkk-tàkku mboob la yaakaar naa toog na fi ba sëñ Abdou Lahad ba yëngu bu bëree ba mu yónnee ci sëñ Abdou Lahad naa ko nee ko mu artu gone ndax coow li bari na dane loolu la fi doon xaar teguñ fi ñaari fan mu faatu waaye nag loolu ku gàtt fan du ko fekke ndax sëñ tubaa toog na ci njaarim di wax lii ko suñ borom mayoon am ku naa ko ah ndax jumaa ji nii mu meloon ba fi sëñ Tuubaa du jógee gannaaw sëñ Tuubaa lañ rëdd xibla bi la ko sëñ bu sa génn sëñ Modu Musaa fondement ko sëñ yoon yi ab sëtëm moo ko moo ko lotisé kon xam nañ ne lu ci bari gannaawam la ci saayir waaye ba koy wax na ko suñ wali karamal jan baa googu mu doon wax ahasanillahu min kay di man xalaa nii loolu am na ñoo xam ne waaw am na ñoo xam ne gëmuñu ko woon ndax boo ko suñ bi wax dana ja waaye ba suñ bi waxee ba àggal sama dëkk ba nangam ak nangam ak ndox ma dana jam ba dootuñu ko fay fi ñu toll nii Touba ñaare kan moo fay gis ñu ray fa jiit wala

xasaa inu rabbi futihat lii wa sasaat li xayri asa dunya axra barsaqun moom mooy magasin suñu borom lu nit bëgg ci yàlla te amee woo ko ci sëñ Tuubaa koo ko mën a amee sëñ Tuubaa la ko jox wala dafa am ci mag ñi koo xam ne mën naa tudd aw turam Kanzul Kunuz la doon laaj sëñ Tuubaa waaye xam nga léeg-léeg sëñ bi moom daa xaw a doy waar xam naa kilifa ga ba mu ko yónnee ba sonn sëñ bi daal di ko koy bindal ba mu ko bindee jox ko am mag daal na ko yóbbul ko ko fii ak suba ba yàgg mu ne ko bàyyi ko sax danaa def lu gën a gaaw lool ba guddi jotee mu mu ilham ko ko ci ay nelaw ba mu xëyee ba mu bindab leetar yónnee Sëñ Tuubaa naa ko li ma doon sàkku ci yow de suñ borom defal na ma ko dig am na ñoo xam ne xam nañ ne sax la tax ñu naay murit laak du murit loolaa tax waaye nag Sëñ Tuubaa moom mag moom ko waxaloon moom xam na ne moom moo Kanzul Kunuz googu moo ko def ci moom Sëñ Tuubaa moom nag waaw bu ñu am complexe ñun ñii ñëpp xamante nañ dañuy dese ci dëkk waaye yi ñuy séq yi ñuy dugg dund ci dëkk bi amul solo de sëñ Tuubaa mooy fóotukaay gi nga xam ne foo mën a tilime su la setalul kenn du la seetal moo tax nekk ci mooy yàlla ak luñ doyadi doyadi bu mu teyee bu liggéey sëñ Tuubaa jotee ñu teew a xam dañoo xam ne lañ nekk nit ñi xam leen dañ lay xool sax dirus te fekk na yow mën naa am ñoorus waaye yow yëgoo sax lañ nekkoon ndax xam nga doolee sëñ Tuubaa man nag bokkuma ak ñii di waxee am xel akuk dal su ma dalee mën naa wax ak waaye nag su ma demee ba toll fa may waxee sama xol moom du ma bàyyi xel nit ay xelam ci ay xalaatam bay waxee fu ko neex hmm. fi neex yàlla ak yonent Sëñ Tuubaa rek fa lañ fas yéenee kon nañ fi dajeeti ay déwéni déwén waaw Sëñ Tuubaa nag bàyyi ñu dara am na xasida gu ñu wax mu daxayaat yi gudd fana tax mu bindu tam ñoo xam ne tamit lanaa xumranaa sax yi lanaa badana ñii fii dof dof lii di bañ a ami soxna wasaw jotaan saalihat du xin wala xala tuxaawal biir yaa mu xin ak uh, uh, uh, bayit wa ca sindi di max mi nga tund fen max sajid sal bi loolu soxna yee ko tax a jóg dem leen takk ci soxna yi gó soxna yi dem wuti ci borom kër yi ñu ami doom di ko ngénte di ko tuddee Sëñ fu fuñ tajee di mbooloo ñoo xam ne mbooloo mi mbooloom Sëñ Tuubaa la jërë ngeen jëf bismillah bakk bondaal